Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Jokalante asalaamaaleykum comme ni nga ko waxee rek. démb ba tey ñu ngi leen di jox li nga xamante ni moom la ñu warloo suñu diggante ak yéen démb ñu ngi woon jumaa ja jox leen li ngeen xamante ni mooy lu yéeme li yéeme mooy ni ku ne ak li nekk sa xool ak lu nekk sa bopp ak li nekk sa gëm-gëm démb ñu indiloo ko tey di alxames bu ñu alxames mooy bisu màggal gi bisu màggal gaa ngi nii tey suba saa ngi nii te bu ngeen gisee tey sama ginnaaw li ci nekk xam ngeen découragé ci nekk tey jii nag. waaw gaa yaa may laaj naan ma sa lokos sa lokos waaye xoolal dama ko jël teg ko nee nee leen leen ma tuuti ma dugg si ak yéen parce que dafa am leneen loo xam dama ko bëgg a fël ak ñoom mais balaa boobu noonu dafa am koo xamante ne dama koy woo mu ñëw sama wet onsu billah bisimillah inna wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe moom Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul mën naa ba léegi waa Salam Vision ñi ngay ànd ak yéen information yi gën a leer image yi gën a neex image yi gën a set ñu ngi leen koy jox jours yi mooy le 18 bu ngeen déggee li si sawar bis bi moo waral ñu koy wax tey la suuru màggal gi tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ñëw ñëw fekk si suñu kilifa sax sax moom laay wax waaye fekk si ndaanaan bu mag mën naa ne Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne mënoon ma dippe moom mooy turandoom muy sëñ Cheikh Oumy Mbacké mi Mbacké tey mën naa ne jour ji mooy le 18 safar tey ji ñëw fii bëgg a ñëw fekk fii ay mbokki taalibe yoo xam ne ñu ngi fiy def benn mën naa ne man mën naa ne tey jii ñu ngi fi def benn plateau boo xam ne pour spécial ndekki sëñ Cheikh Oumy Mbacké te nag ñu fekk fi ay mbokki taalibe ñu dressé seen taabal defar ko defaru taalibe tey ñu fas yéene ñëw fii wan leen li nga xam ne mooy taabal ji waaye tamit duñ si yem ñu wan leen li nga xam ne moom mooy tukki fii nga xam ne mooy kër sëñ Cheikh Oumy Mbacké yéen yéen mbokki sénégalais yi nga xam ne yéen a man ak yéen ci Salam Vision te nii ànd ñëw doxantu wan wane leen wane leen ak sama gaay xam naa du ma si yem ñi nga xam ne ñoom ñoo di restable ji dama si fexee jël kenn rek waxtaan ak moom dóor ko ay question waa mi ngi noonu maa ngi lay siyaare sëñ bi. maa ngi lay fay bu baax. tur bi la. Massamba la. Massamba ok. Euh, Massamba ñu ngi lay siyaare. delloo ziar bu baax. waa tey dañoo ñëw si bisu bisu màggal gi. Mhm. tey tey di le 18 safar. Mhm. te 18 safar ku ne xam na ne moom. moom la Serigne moom moom moo jaraloon Serigne Touba ba mu ne bu ñëwatee. Mhm. na ngeen ma santale yàlla. tey ji ñëw fii nga xam ne mooy seen kër kër sëñ bi mhm. tey ñëw gis ngeen def seen taabal dressé ko mhm. lan moo waral loolu avant tout waaw duñ def lu dul sant yàlla jullu seenent bi sant Serigne Touba bu baax sant Serigne Touba bu baax a baax di maam di ñaan maam Cheikh Oumy Mbacke yàgg fi lool te ànd wér waaw 18 safar moom boo ko déggee maanaam mooy màggal Touba tey sëñ Fallou moo woote màggal gi fi tuuba kon jaadu na Euh, lu bokk ci moom ñoñam këram mel nii waaw sëñ bi def na li waa xeeb na ko taabal yaa ngi nii kër gaa ngi nii yàññ na macha allah ndongo yi bëgg nañ taalibe yi bëgg nañ sëñ bi bëgg na ñëpp ànd nañ ci dressage bi daal dressage baa ngi noonu voilà foofu noonu laay bëgg a ak yow parce que sa sa biir wax dama dégg nga ne eh, si Cheikh Mouhamadoul Fadel mi nga xam ne man mi moom loolu ma dippee mhm. moom moo wootee magal gi biir Touba mhm. est-ce que mënoon mënoon nga maa ñëwal ci li nga xam ne moo waral moom moo wootee magal gi Touba waaw loolu nag du ma si xuus. waaw ndax dama sañoon dama lay jàllale sama jëwriñ yi. waaw ñoom ñu leeralal la. bu ko defee ndax gis naa ni maanaam euh, Salam Vision bi macha allah. <laughs> ñu koy suivre bari na kon donc booy wax faaw nga wax fi loo xam. xam nga dama dégg ñu ne Cheikh Mouhamadul Fadil xam nga ay jamono. Mhm. bi nga xam ne Serigne Touba wuyu ji na boromam. Cheikh Mouhamadul Fadil fas ne jël màggal gi téye ko si loxoom. Mhm. nga xam ne tombé woon na boobu polémique bi bari na woon ba xam ne murid dañoo xiroon benn xir boo xam ne dañ daan woote màggal Tuubaa dañ ko daan wax naan tabaskiwaat la ko gars yi daan wooyee mm-hmm. Cheikh Mouhamadul Fadil bëgg fee dindi polémique boobu noonu te xamul maanaam maanaam te am na système yoo xam ne bu fa jaaree man na mën na fiwele murid mm-hmm. mu ne nag léegi na ma fekk ñëpp fekk si Touba mm-hmm. bi ko ñëpp fekk see Touba nga xam ne baatu polémique boobu waroon mag tabaskiwaat bi ba am gaa yu bëree bëri doon polémique yoonu murid naan ñi dañuy bokkaale ak yu kenn xamul Cheikh Mouhamadou Fadil dindi ko te kenn xamu ko kon bu buñ amee lu ñuy wax dañuy wax jërëjëfe Cheikh Mouhamadou Fadil parce que yëf yi bu yegsee ba fii moom la moom moo waral li Serigne mën naa ne tey bu dellu moom du defar moom du defar aw moom du moom du defar toogaayam benn yoon mhm. waaye tamit sa ndaanaan li kenn du moom waaw maam Cheikh Oumy Mbacke yaakaar na ku ko xam xam ko ci lu baax mhm. ku laabir bëgg sañse bëggul lu baax bëgg njabootam surtout bëgg njabootam duñ def daal ñun lu dul di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér barke borom Touba. di sant tamit sunu yaayu booy bi fi nekk muy soxna Aji Faye ñu ngi koy ñaanal moom it bu baax. dafa mel ni moom sonn na si affaire yi parce que dafa mel ni moom mooy moom mooy dressé taabal yi di bisoo ba léegi maa ngi koy gis mu sonn si lool macha allah. waaw moom moo ne ci kër gi mooy sunu yaay. mooy sunu yaay ñun ñëpp. maanaam jurul jurul rek ne jur mbàkke mbàkke waaye daa boole mbàkke mbàkke bàyyi faal ñëpp boole jur ànd seeg euh, rakkam yi macha allah ànd seeg euh, doomu maaraay yëpp macha allah féewalul benn yoon boole na lépp lépp doon benn ndax suñ tubaab benn la te mënuñu ko séddoo waaw. dafa am lu ma jaaxal. Mhm. depuis dem ba léegi muy fi ñëwee ba léegi. Mhm. parfois képp ku ma talal sama micro ni ko waxal si sëñ Cheikh Oumy damay sentir ne yëg-yëg lay waxe mhm. waaye tamit du si yam da ngay sentir ne kii ki muy wax da koo ñor. ba yenn kàddu yu yenn kàddu yu doy waar sax du ko bëgg di génne parce parce que jëmm ji fi mu ko maanaam jëmm ji fi mu leen yegg lan moo waral loolu ak lan la sëñ bi def si yéen. waaw yaakaar na ku la jële ci lëndëm indi la ci leer nga dénk ko sa àdduna ak sa àllaaxira kon donc kooku doy na la. maam Cheikh Oumy Mbacké amuñu lu ñuy wax ci moom. fi rafet jeexee moom fa lay tàmbalee di rafetal dem kon donc ñun amuñu luñ koy wax. lu dul li ma la wax léegi rek maanaam ñaanal ko gudd fan ànd ak wér waaw yàgg lool te wér daal dañ koy ñaanal yàgg lool te wér njaboot gi màgg ba teral ko barki borom Tuubaa nan ngeen fas yéene dund dundee dundee màggal gi si bëccëg gi ak guddi gi programme bi. waaw bi ñu xëyee macha allah wàcce nañ kaamil defe naa kaamil bi léegi mu noppi te bu noppee incha allah fa yéene nañoo yëkkati ay xasida ndax bindu sëñ bi la te sëñ bee moom màggal gi. kon faaw ñu jàngal koy xasida waaw moo ko waxoon Sëñ Tuubaa moo ne karaamatu xatti mhm. kon nag faw ñu jàng xasida yi ah. bu ñu jàngee xasida ba noppi mhm. gars yi ñëw xéwalu ñu ndekk ak jàmm mhm. bu ko defee ñu jublu ci waañ bi jàpp ci liggéey bi jàppale soxna yi ñu togg añi incha allahu taala waaw bu añi noppee ñu xool nu def jublu ci reer yi noonu programme bi di tëddee sëñ baa ngi fii ku ñëw di nga ko ziar facilement ndax moom bokkul ak yooyu nga xam ne dañuy xañ nit ñi seen bopp. maa ngi koy wax barki démb sama gars nii mhm. sama réalisateur ma ko sëñ bi xam nga lu mu a neex si mhm. moom. moom dafa nekk mbàkke mbàkke boo xam ne dafa wàcce boppam. Mhm. aussi yemul si loolu. moom ak ak ak moom loo ko bëgg bëgg bëgg soo ñëwee taxaw si kanamam bu gisee si yow sikk fi nga toog bala nga fay jógee foofu la lay corriger wax la sa bopp. man loolu dafa bokk si li mu gën a neex si moom parce que dund naa ko ak moom ay yoon yoon mm-hmm. gis naa ñu bëri ñoo xam ne ko yoon yoon mm-hmm. maanaam bokkul si ñi nga xam ne ñoom dañoo jël mbàkke mbàkke bi teg ku si kaw aj ko si kaw mm-hmm. ñoom danoo ñoom danoo sant mbàkke pare wàcc seen bopp ñëwaat bokkaat ak nit ñi nekkaat ak nit ñi parce que nit ñi pour nga wax ak ñoom wala wala pour nga xamal leen li nga xam ne moom la moom la Serigne Touba di wootee il fallait que nga wàcc ba tolloo ak ñoom niveau parce que yaa leen ëpp niveau boo wàccul ba tolloo ñoom niveau rek yaakaar naa ne jàngale bi ngay jàngale pour moom pour ñoom ñu jot message boobu day waaw day xaw a métti trop te moom nag macha allah yemul bokkut ak ñooñu loolu moom lan nga ko war a xalaatee moom moom moom moom daal Mbàkke daal. te et li ma gën a jaaxal mooy xam-xam bi mu def si yéen. waaw xam nga loolu nga wax lépp dëgg la loolu nga wax noonu lépp dëgg la ndax fi nga euh, tibbee noonu rek sànq di wax maanaam boo ñëwee ni mu lay teeroo ak lu ne ci yow mu wax la ko man bi may màggal si keroog. te maa dugg si saal bi seen ko rek sukku raam mu ne ma jugal nga dox ñëw maanaam sëñ bi li nekk ci moom faaw mu ne ci moom ndax Baay Faal la ba pare waaw moom daa jël lim am yëpp addunaam ak àllaaxiram jaay ko jëndee ko taalibe kon bu melee ni ñun duñ jaaxal waaw sëñ bi moom Baay Faal la moom Baay Faal la loolu faaw ñu ko ci kaw sëñ bi Baay Faal la Baay Faal bu mag la moo tax faaw mu faaw mu mu demee noonu waaw te Baay Faal moom yaakaar naa doo gis sa moroom am sikk maa ngi tuub sax si sa morom bi ndax sëñ moom amu fi morom waaye maanaam eh, nga gis ndongo la nga xam ne eh, am na lu xaw a kii ci moom nga jàkkaarloog moom wax ko ko loolu moo yëfu nit moo yëfu gor moo yëfu baay faal te sëñ bi ci loolu lay dox mm. waaw kàddu yi daal bu ma soñoon wàccee ko foofu jox kii mooy sëñ tàkko mm. ki may gis ma taxawal nii mooy sëñ tàkko Mbàkke ku ne xam na ne tey jii fi ñëw nii moom këram la ku tedd ki nu fekk si fii moom mooy waajuram kon xam naa ne tey jii bu waxee mën naa ne sëñ bi wax na parce que ay kàddu yi génn si moom mën naa ne tey boo dekkoon ku si boo dékkoon sëñ bi micro tamit xam naa ne du du soree waaye balaa loolu da ngeen may topp ma jox ko sama micro tale mbake Mbacke maa ngi lay nuyu. waaw ñu ñu ngi lay siyaare maa ngi lay yeesal sama njëbbal si yow. waaw ñu ngi baax baax. di bu baax a baax loolu siyaare bu baax alhamdulilah nan nga gisee Mbacke màggal gi ak mbokki taalibe yi ñun ñëwee fekk si leen. waaw sant yàlla rek ndax bés bi moom suñ bi dafa wax ne kaa leen santalema yàlla waajur suñu Cheikh Omar Mbacke di sëñ Fallou moom moo ko indi Touba moo tax suñu Cheikh Omar Mbacke bi bis bi ñëwee daanaka day wax ne daanaka li mu am lépp doo ko ci def ndax boroom ñëwee wut bor te ku man a fay la loolu dama da koy wax ci ay kàddoom moo tax lii lépp moo ko waral ñun ñii tamit moo ñu tàggat ci lii ñu nekk ndax dafa dañoo jël nag Baye Fall segam suñu fallu moo jaaroon ak njureelam ji nekk talib kon ñun si biir talib boobu la ñu nekk ba ba moo taxoon ñu ñu nekk àllaxsaayu ànd ak donga yi ci liggéey bi. Mhm. xam nga sama caméraman bi. Hmm. bërki dem ba léegi dafa am benn question boo xam ne dafa may laaj. Hmm. dañ koy laaj mbokk taalibe yi mu jaaxal ma lool. Hmm. ma bëggoon yow mi nga xam ne mbàkke mbàkke nga tey bokk nga si bokk nga si yoon bi. dama bëggoon nga ñëwal ma si tuuti lan moo waral sababu màggal gi. sababu màggal gi waaw. màggal gi sant gi sant yàlla la ko suñ bi woot borom mu Seexul Xadim. waaw ndax dafa xool yàlla xéwal mu ko xéwal yëpp. moom mu ne lott na ci sant ko moom képp dafa bëgg ànd ak ñëpp ñu santale ko loolu bëgg a jëmbale ak jaam ñi rek la ndax Serigne Touba daanaka tëlewu dara mm. ndax booy xool ay mbiram danga sax kii du nit mm. moo tax bis bii nag moo ko woote woon di ko di ko defal boppam mm. Serigne fallu moom bi bi bi Serigne Touba làqoo Serigne mooy Moustapha nekk di ko doxal ñu mm-hmm. génnee la Serigne ñëw woote ko Touba mm-hmm. ndax ne ñee nekk Màkka li def ñun mën ko def fii mm-hmm. di siyaare suñ suñ Tuubaa fii di ko santale yàlla sant yàlla nag yaatu na lool lu ne ci mën a nekk nit ñi buñ xëyee jàng nañ kaamil te kuréel ñi ngi waaj jàng ñu waaj a séddale ndekkee yooyu macha allah. Hmm. waaw Mbacke ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi lay jaajëfal. merci. asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziare euh, waa Salam Vision moo ñëw ñëwoon tey ci euh, kër euh, Cheikh sëñ Cheikh Oumy doomu sëñ Fallou Mbacke ñu ngi leen di ziar bu baax a baax soxna si maa ngi lay bégee di la ziar. damaa gis ne léegi yéen a ngi ci biir bâche bi kër siñ Sëñ Cheikh Oumy doomu Sëñ Fallou léegi mën nga ma wax lan mooy seen taxawaay fii ak lay taaru lu xamante ne moo ngi koy gis depuis yu démb ba léegi mu nekk seen liggéey léegi lan moo waral loolu ci côté siñ ba. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu wér a wér di leen jaajëfal ci teewaay bi kontaan nañ ci teewaay bi bu baax a baax. waaw lenn rek moo waral lii mooy tey dafa nekk 18 safar mu doon bés bu mag ñu war ko màggal lépp lu nu am war nañ ko cee def nu mu gën a yaatoo gan mun mën a kontaan lépp rek nañ ko ciy def chaque année dañuy ñaan yàlla Serigne Touba di ñu gën a jàppale chaque année xéewal yi di gën a saawaan baawaan parce que tànk Serigne Touba yoonu Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek. parce que gis nga ni ku rayoon ginaar daaw wala nag wala xar ren gi ray nga nag macha allah te loolu la ñuy ñaan muy gën a jëm kanam incha allah ñu leen di jëfal bu baax a baax. léegi euh, damaa gis ne que ne taabal yi nice na yéen jigéen yi. ak yéen góor yi ñi nga xamante ne maa ngi leen di gis ak seen yére vert blanc yi. la yéen duggoon si waañ bi di liggéey affaire yooyu walla par commande la. ah waaw ñun ñoo ko doon defar de macha allah tarkalla ni mu yaaññee nii moom. Ah. jël na temps trop mais macha allah da koo jar daal. lii kay jël na temps. <laughs> waaw waaye sëñ bi moo leen di jox ndégel boobu. non suñu propre initiative la nag. Hmm. sincèrement. dëgg la sëñ bi day jox ay ndigal ñu koy exécuter di ko jëfee mais moom suñu propre initiative la ñun ñoo taxaw temb pour daal di koy def. association la wala. waa groupe bu daayira bi la ñoo ko organiser nii. daayira bu sëriñ daayira bu Serigne mhm. loolu am na solo ñu lay kontaanee bu baax. di wax ne tey jii nii kontaan nañ trop euh, jigéen yi def nañ lu rafet fii. table yi nice na lépp taaru na jigéen ñi tamit sax ñoom taaru nañ macha allah fii ci kër Seex Ummi dama ne lépp fii lay xoyom xoyomee lépp fii lay baaxee lépp li lépp fii lay neexee kon donc soxna si tur bi naka la sax. soxna Kabañang. soxna Kabañang ñu ngi lay bégee di la ziare di kontaan bu baax a baax ci yow voilà. Thank you. Allahu